bu dee ci ci alxuraan tey comme biñ comme biñ jël nit ki njëkk loolu buy bëgg a def istixaara mm-hmm. dafay fexe ba xeetu mer ak xeetu stress yooyu yëpp rek day génn ci jëmmam ba set mm-hmm. am na kon kuy waaw nga xam ne dafay am ak teewlu boo xam ne dafay nekk ci yow te li ngay yit li istixaaroo tamit na la ñor mm-hmm. na la ñor ba nga xam ne lii kat iteel na la nga xam ne moom dara itteel na la ba noppi maanaam nit ku da ngay foo wala da ngay làmbat waaye dafa am lu ma yitteel nga bëgg xam njëkk loolu so jullee geba ba noppi bu de dafa am activité yoy def nga dem ba dara sulu dul teud mm-hmm. nga japp nga julli ñenti rakka mm-hmm. ben rakka bu ñek bi da ngay def onze nga xalaas deuxième rakka bi nga wat 11 muy 22 deux waaw troisième rakka bi nga defat 11 muy wen muy muy mm-hmm. deuxième rakka bi ji dess nga defat 11 muy 44 li xalaas 44 bu nga def nga jël ca sóoratu la nek yaakaar kat ay katawe dama def erreur na mooy xooluma bi waaye ay 80 daal japp na ne fa la nek muy laye ji muy ama abramo mhm. amran fa ina mubrimuna am yahsibuna anna la nasmahu sirrahum mhm. ngay jang 45 fois teewlu ko ndànk ama abramo amran wala nga dem man nak ni wa Ndakaar yu jang alquran xaw ko ndax dama ñew fi fek gaay ay sourate numero 30 lañuy wax sourate xawma lan lool mu xaw ma dama ko fàttee xol nak bima ma waaw waaye dal sóoratu suhruf suxuruf nekk aaya 80. aaya 80 ci jeex presque bu ci ci boo jeexantalu saar bi fi la nekk. Mm-hmm. ama abramoo amran. fa mu ah. mubrimuuna am yasibuuna. waaw ana la nasma sirrahum ci sirrahum baatu sirru boobu. foofu nga yem nga jàng ko 45 fois. Mm. so noppee par exemple nga ne yàlla kat maa ngi lay laaj. tukki bii may bëgg a def. waaw ànd ci ak saa njóogu wala saa njóogu kat day bëgg a dugg ci dara. Mm. nangam maa ngi laaj yàlla ba xam loolu ngëneel la ci saa njóogu. Mm. wala du ngëneel. Mm. wala bu dee ngëneel lan mooy xëcc ngëneel li bu dee lor lan mooy dàq lor ci. daal di tifli rek daal di def nii teg sa ñaari nopp daal def nii daal di tëdd. boo tëddee itam boo boo nelawee rek insha allahu taala dina di gént moom. luy lay firndeel ci loolu. ci loolu dara. ba mooy listixaar ci alxuraan mooy listixaar ci wala dal di nga am firnde mom bu fekke gisoo nag. parce que nit plus que nak moy nima waxone li lii yalla la. waaw yalla la manam istikharam birum yalla la yalla la. Mm. xam-xamu yalla la li fekke ngay gëna jégué yalla mm. soko défé da fay gëna lèr su fekkente ne nag da nga sori yalla man nga def ben yoon gisoo la def ñaar yoon way en général bo défé ñetti yoon di nga gis. di nga gis di nga gis. Mm.